Sall du moroomo Serigne Béthio Thioune amul ma Seexu sunu jublu si bindu way wi mooy wane kenn ki nga doono sunu yéene ci way wi mooy wane jëfi Serigne Saliou sunu yéene ci way wi mooy wane jëfi Serigne Saliou sunu yéene mooy wane jëfi Serigne Saliou sëriñ Béthio sa sang sëriñ Sall moo gën a sang ku mu mën a doon sunu yéene mooy wane jëfi sëriñ Sall sëriñ Béthio sa sang sëriñ sal moo gën a sang ku mu mën doon sëriñ Sall wayi ki la jiital seex bi digal ñu topp la ba mu ne cunu defoo waxuloo ne yaay ki ñu doyloo ku la xol ci ta waree mu ci yow xam ne yaay gañu doon seet cër ba taalibe moomul mbokku du doom ndeke yaay ki ko yelloo kani yaay man ma yow Seex Béthio wane na li nga doono kani ma yow Seex Béthio wane na li doono kane yaay manu mayo sewɓe co waɗananiga dono kane yaay manu mayo caɓɓe waɗananiga dono kane yaay manu mayo sewɓe co waɗananiga dono bakanala nde yaay dan gañital don sermoro bakanala nde yaay dan gañital don sermoro cheikh moumam bambi cam seri saliw yow la wayo ku la bëgg xam na la laaj Serigne Saliou mi doono ku du rabbana xam la Serigne Saliou rek la xam ak jara xam jara waayo kii ku ko am noo koy noono Cheikh Béthio ku lew toog moom Serigne Saliou woo ngi bër Cheikh ku lew toog moom Serigne Serigne Saliou ndigal cuun ngu nal li nga doon Serigne Mountakha la jiital Cheikh Bamba doy la ñu ne doy nga nu doy loo saf nga noo nga nu sëñ Saar am jëf lu muy rëy yërëm kay dimbale nu yaa am ndigal le lu muy rëy yërëm dimbale yaa am ndigal <laughs>